وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد mbokki jullit yi noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di julli ci ab yonentam di leen dénk di dénk sunu bopp ragal borom bi tabaraka wa taala ci def ay ndigalam ak bàyyi ay tereem te sax ci gannaaw loolu gis nañ ne lu bari ci jigéen ñi dañuy laaj laaj yu bare bare bari ci seeni mbir ci àjjana ku ci tàbbi àjjana foo jëm ak lu lay xaar koy nekkal laaj yooyu di faral di bari lool ñu bëgg a tudd fii lenn ci ay njariñ yoo xam ne day aju ci axwaalu nisaa fi janna melokaan ak situation bi nga xam ne moom la jigéeni jullit di dunde su nekkee àjjana ngir loolu mën a nekk tontu ci question yu bari yooyu nga xam ne day faral di ñëw tomb bu njëkk ba war a doon luñ mën a jariñoo moo di jigéen ji kenn waru koo yedd ci kaw ne day laaj fan la jëm ci àjjana bu ëllëgee ban situation lay dund ban façon xéewal lañ koy jox ndax bakkanu doomu aadama fu mu toll fu nekk day xalaat ci ak mujjam ak fan la jëm kon loolu kenn du ko ci yedd ñaareel ba moo di bakkanu doomu aadama ci boppam moo xam góor la walla jigéen day bég lool day ànd ak bànneex lool saa bu déggee turu àjjana rawatina suñ ko melalee xibaar ko la nekk ci àjjana ci ak ay xéewal loolu nag lu baax la li fee nekkul rek mébatum kese moo xam ne bakkanu doomu aadama daf koy xalaat waaye fekk ne benn jëf teguwu ca su dee xalaatu kese rek ak mébét ak a neexoon mu nekk loola moom musiba la waaye nag su fekkee ne bakkan ba aju na ca àjjana di ca xalaat waaye ànd ak jëf nag yoo xam ne mooy tax nit ki dem àjjana su boobaa loola lu rafet la ndax borom bi tabaraka wa taala nee na ajjana jàngoo jox nañ leen ko ci kaw jëf ji ngeen doon jëf kon jëf ji ngeen di jëf lu munta ñàkk la ci nit ci tabe ajjana kon jullit bi sañ naa bégal ba kanam bu baax a baax ci xéewali ajjana yay ñëw waaye nag na dëggal loolu ci jëf jëf joo xam ne mooy tax a tabbi ajjana ñetteel ba mooy ñu xam ne àjjana ak la ca nekk ci ay xéewal du góor ñi rek ñoo ko moom waaye borom bi tabaraka wa taala ñi ragal yàlla ñépp la ko jox moo xam ay góor lañ wala ay jigéen moo tax suñu borom di wax ne wa man yaamal min alsaalihaat ku jëf-jëf ju baax min dakarin aw unsa muy góor wala muy jigéen wa huwa mumin te fekk mu ànd ak gëm yàlla fa ulaayika yadxuluuna aljanna ñooña dañuy tàbbi ajjana ku def lu baax jub jaar ci siraatul mustaqim jàpp ci alquran jàpp ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam góor nga moo xam jigéen nga borom bi tabaraka wa taala nee na da tàbbi ajjana kon xéewalub ajjana góor ak jigéen ñoo ko moom ñeenteel ba moo di ànd ak ne jigéen ji kenn du ko yedd bu dee laaj situation am ëllëg ci àjjana fan la jëm ak nu muy nekkee ànd ak ne gisu ko ci yedd waaye nag baril gi laaj yi daal ak xóotal gu ëpp gi daanaka mëtu ko ndax boo dégloo laaj yi fan la jëm ak nu muy nekkee jëkkër jan lay àndal ak day mel ne moom mii daal dem àjjana dafa mel ne tàbbi ci béréb la boo xam ne fitna dafa nekk mel ni kuy tukki tukki boo xam ne daa war a ànd ak njàqare loolu lay nuru waaye ku xam ne àjjana boo xasee dugg lépp luy nuru xeetu texeet yi xeetu metit xeetu jafe-jafe loolu lépp yëkkatiku na dem na yoonam soo xasee xam loolu kon loolu doy na lépp metit day soppi soppiku ak texe gu sax nag faaw boo xam ne du jeex mukk kon doy na ñu xam ne borom bi tabaraka wa taala nee na laa yamassuhum fiha nasab ci biir àjjana nee na kenn du fa gis ab coono wala aw metit wala looy tawat wa ma hum minha bi muxrajin te ku fa xas dugg duutoo fa génn bu mukk kon dugg fa doy na sëkk borom bi fiha ma tashtahihi al anfus lépp lu bakkanu doomu aadama bëgg muy sedd xol ma nga ca ajjana wa taladdu l ayun wa antum fiha xaalidoon nee na lépp loo xam ne seeni bakkan bëgg na ko seen xol di ca sedd ma nga foofa te du ngeen fa jóg bu mukk da fay sax kon foofu problème bu mag bi ndekete du mooy su ma fa duggee fan laay nekk waaye nan laay def ba dugg fa foofu la yëf yi nekk borom bi tabaraka wa nee na dugg àjjana radiallahu anhum wa radu anhum ñii gërëm nañ yàlla yàlla gërëm na leen kon loolu doy na sëkk muy góor nag muy jigéen juróomeel ba moo di jigéen ji génn àdduna jëm àllaaxira du génn benn situation ci juróom-benn yi may bëgg a tudd ba ci jëkk benn mu faatu fekk mosula am jëkkër ñaareel ba mooy mu faatu fekk amoon na jëkkër sax waaye passé dafa dox digganteem ak jëkkëram te amaatagul jeneen jëkkër diggante boobu mu faatu wala jigéen ji boroom jëkkër la faatu na waaye jëkkëram tàbbiwul àjjana moom moo tàbbi àjjana jëkkëram tàbbiwul àjjana wal iyaasu billah ñeenteel ba moo di mu faatu bàyyi fa jëkkër gannaaw boo xamee ne jëkkëram a ngi dund moom maanaam mu jëkk a faatu jëkkëram moom jiitu ji juróomeel ba mooy jëkkëram faatu mu des fa moom di dund amaatul jëkkër ba faatu fekki jëkkëram juróom-benneel ba moo di jëkkëram faatu bàyyi ko fa mu dem sëy ak jeneen jëkkër juróom-benn melokaan yi jigéen ji buy génn àdduna faw mu doon ci kenn faw mu nekk ci kenn ñooñi nag kenn ku ci ne dafa am ab àtte jigéen ji nga xam ne daa faatu te amagul jëkkër ak jigéen ji nga xam ne daa faatu fekk ñi fase ko te amagul jeneen jëkkër ak jigéen ji nga xam ne yàlla dafa dogal mu dugg àjjana te jëkkëram duggul àjjana ñett ñooñu ñoo bokkub àtte seenub àtte mooy borom bi tabaraka wa taala moo leen di may ay jëkkër ca àjjana ci góor ñi nekkoon fii ci àdduna te amuñu faatu amuñu ay jabar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amu fa ma fil jannati azab ku tàbbi àjjana ku nekk boo dee góor faaw nga am jabar boo dee jigéen it faaw nga am jëkkër célibataire amul foofu jigéen ji nga xam ne dafa faatu gannaaw bu mu amee jëkkër faatu bàyyi fi jëkkëram ak ki nga xam ne jëkkëram daa faatu mu toog wutiwul jeneen jëkkër ba faatu fekki ko su fekkee ne tàbbi na àjjana kooka jëkkëram joojee lay fekki ñooy bokk àjjana su fekkee ne jëkkër ja ci waa àjjana la bokk moom mi nga xam ne dafa faatu woon bàyyi fi jëkkëram ak moom mi nga xam ne jëkkëram daa faatu bàyyi ko fi te amaatul keneen kooka moog jëkkëram ñooy ànd ki nga xam ne nag jëkkëram dafa faatu bàyyi ko fi mu wutaat jeneen jëkkër mu wutaat jeneen jëkkër kooku jëkkër ja ko mujjee yor su tàbbee àjjana kooku lay àndal jëkkër ja ko mujjee yor ak luñ bari bari nag bu doon téeméeri jëkkër sax ju mujj ja rek kookaay jëkkëram ca àjjana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax nee na almaratu li axiri aswaajiha jigéen ka ko mujj a yor kooko mooy jëkkëram ca àjjana su tàbbee àjjana moo tax muawiyatu bne abi sufyan radiallahu anhuma bi abu darda faatoo soxnaam si ñuy wax ummu darda tenji ko ba summi mu ñëw labat si ko moom muawiya won ko ne ko da ko bëgg soxna soxna soosu di umu darda dafa bañ ne ko déedéet ndax déggoon naa abu darda mu nettali benn xadis boo xam ne da koo jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne woon jigéen ka ko mujjee yor rek kooko lay àndal ci àjjana te man day bëgguma keneen yor ma ku dul abu darda noonu la tooge ba fekki abu darda xudayfatu bnu lyamaan radiallahu taala anhu dafa doon wax ak soxnaam ne ko su fekkee danga bëgg a ànd man ca àjjana day suma ma faatoo bul wut yeneen jëkkër ndax kat jigéen moom ca àjjana ka ko mujje yor lay nekkal ne ko loolu yi moo tax yàlla xaraamal ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñiy wutaat boroom kër gannaawam ndax wér na ne ñooñu ñooy ay soxnaam ca àjjana wér na ne ñooy ay soxnaam ca àjjana loolu nag lay tax jigéen ja mu di ko jaral loolu mooy am yaakaar ci jëkkër jii faatu bàyyi ko fi am yaakaar ci moom ci ne kii ku war a texe la kii ku war a am daraja yu kawe la ndax kat jëkkër ji mën naa nekk ci daraja yu kawe soxnaam faatu fekki ko fekk moom yeyoowul woon daraja yu kawe noonu waaye ñi yéegal ko ci jëkkëram parce que faawu moog jëkkëram ñooy ànd nekk loolu moo tax jigéen ji itam di tànn nag jëkkër joo xam ne boroom maqaama yu kawe la ci diine ak ci sunna ndax mu mën a ànd ak jëkkëram foofa buñ seetloo léeg-léeg ñaan yi nga xam ne mooy ñëw ci ñaanal néew bu faatoo am na ci ñaan boo xam ne dafa am baat bu ci rot boo xam ne taalubee jàngkat yi mën naa nuru am lënt ci ñoom ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf caa waxaale ne jigéen ja ñu ñaanal wala góor ga dañuy wax ne yàlla na nga ko wottee yàlla na nga ko chanceel wotteel ko jëkkër yoo xam ne moo gën jëkkëram ji ñu ne kooku su fekkee ne ndaw si amul woon jëkkër kon ñaan googu nuñ koy waxe ni ñuy waxe ne jëkkër ju gën jëkkëram ji te fekk moom amul woon jëkkër wala su fekkee ne xam nañ ne jëkkëram ji woon ci àdduna mooy jëkkëram ci àjjana it kon itam ni koy waxee ne jëkkër ju gën jëkkër jooju ndax kenn kee tontu la boroom xam-xam yi indi nañ ko moo di même jigéen ji nga xam ne amul jëkkër sax suñ koy ñaanal ci ñaanum néewam danañ ko ñaanal ñaan googu danañ ne ko wotteel ko jëkkër ju gën jëkkëram ji fii ci àdduna lu tax mooy xëy na amagul woon jëkkër waaye am na jëkkër juñ nattale woon ne war na koo mën a am kon jëkkër ju baax dañ nattale woon ne war na ko mën a am su demoon bay am jëkkër na ko may jëkkër ju gën joojee nga xam ne ci xel yi la nekk su fekkee dafa dem nag ba am jëkkër ba tey danañ ko ñaanal jëkkër ju gën mu am fekk ñaan googu fa muy dugg ci melokaan yi la maanaam jëkkër ji ni mu meloon ndax wottee nit ak changé ko mën naa doon jële fa jëmm ji indi jeneen waaye mën naa doon it jëlee fa melokaan yi indi yeneen kon critères yi mu yoroon qualité nit bi mu doonoon yàlla na nga ko jox muy même jëkkër ji waaye na yor yeneen melokaan yu gën yi mu meloon ci àdduna kon loolu mooy firi loolu kon mbokki jullit yi muy mbokk yu góor yi ak yu jigéen yi jigéen ji na xër na xër comme ni góor di xëre wala nu gën a xër sax ci fexe ba bañ a tàbbi sawara ndax foofa kat la yëf ya nekk ku mucc ci sawara tàbbi àjjana kooka texe nga kon foofu la laaj bu mag bi nekk fan laay jaar ba tàbbi àjjana mucc ci sawara koo koy laaj bu mag bi mbokkum jullit mu jigéen mi xamal ne àjjana defar nañ ko taaral nañ ko waajal nañ ko ngir jigéen ñi comme nañ ko waajale ngir góor ñi ñépp a ko bokk kon sàmmoonte leen ak seen borom jàpp leen ci buumu sunu borom tabaraka wa taala wattandiku leen a sànq occasion bi ndax dund gi gàtt na lool te ba fi génnee day fa nga jëm fooy sax ba fàww la fu nit koy sax ba fàww nag góorgóorlu ba mu doon àjjana baax na ca lool góorgóorlu ba mu doon àjjana baax na ca lool xam leen ne àjjana ak canam gi nit kiy joxe ngir yeyoo ko muy ngëm yàlla gu cëng tawxiid bu àndut ak bokkaale ak nag jëf ju baax ci jaamu yàlla ya ci jikko ya ci jëflante ya waaye toog di mébét rek ak yërmande yàlla yaatu na ak diw baax na te ku baax boppam la baaxal loolu ay mébét la yoo xam ne seytaane dañ fay jaare di yàqal nit ki ak di dox digganteem ak àjjana fàttaliku leen yéen jigéen ñi wax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu ne jigéen ji su jullee julli juróom woor weeram muy weeru koor sàmm boppam ba du njaaloo teg ca topp boroom këram maanaam bu ko boroom këram digalee lu baax mu def ko bu ko teree lu bon mu bàyyi kooku nee na bu ëllëgee borom bi tabaraka wa taala daf koy wax ne ko duggal ajjana ci bunt bu la soob duggal ajjana ci bunt bu la soob kon nag charte yaa ngoog charte yi ñooy daje jullit bu jigéen bi door a mën a am loolu faw mu sàmmoonte julli yi ak koor gi muy jaamu yàlla yi beneen bi ci def sàmm boppam ba du tàbbi fu mu war tàbbi du def lu mu war a dem fu mu a dem ba ca tegu mooy topp boroom këram bi nga xam ne moom la ko yàlla booleel muy njiitam ci kaw suuf mu koy digal lu baax muy def mu koy tere muy bàyyi la koy tax a dugg àjjana lu du lool nag fitna day bari la ca des doon ay mébéti keese rek waaye du am njariñ kon wattandiku leen mbokki jullit yi rawatina jigéen ñi ci ñi nga xam ne dañuy woote jëmale ci yàq jigéen ak def ko fitna summi ko yóbbu ko ca mbedd ma yàq ko ci anam yoo xam ne anam yu salte la yu ñaawa ñaaw la ci turu liberté sañ-sañu doomu aadama yu kenn xamul yu mu doon yoo xam ne yépp yuy màbb diine la jullit bi na wattandiku loolu moo xam ñooy wax yooyu dañ koy bind wala dañ koy feeñal ci média yi muy lu ñuy jàng wala ñu koy déglu wala ñu di ko seetaan xeetu yàq wi yàq jigéen bari na lool ñi nga xam ne dañoo xas bon ba lab ci bonit saa bu ñu xëyee bu nekk seenub liggéey mooy jéem a yokk ñi bon ndax ñi baax suñ baree ñi bon toujours ci gàcce li ñuy wéy foo jaar fu nekk ñi lay joxañ di xam ne kii ku baaxut la loolu bëgguñu ko moo tax borom bi ne waddu law takfuruuna kama kafaru fa takunuuna sawa ñoom ñii bon ñoom ñii wedd yàlla doon ay yéefar seen bëgg-bëgg bu mag mooy yéen itam ngeen wedd yàlla ndax ngeen mel ne ñoom yéen ñëpp ngeen bokk yam kon loolu jullit bi faaw mu xam loolu asalu allah an yuwaffiqa nisaa almuslimin lilfawzi bi jannati naim wa an yajcalahunna haadiyatin mahdiyat wa an yasrifa anhunna shayaatiina al-insi wal-jinn min du'aati wa daa'iyaati tadmiiri al-mar'a wa ifsaadihaa wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa ashaabihi ajma'iin